ko mbokku téléspectateur yi ñu seetaan fii ci Kéwoulo TV ñu amati mbégte di leen présenter seen émission bi nga xamante ni mooy waxtaan ci xam-xam waxtaan ci xam nag buñ ko dee def suñu xel day dem ci ki nga xamante ni mooy Serigne Cheikh Tidiane ñas ñu gën koo xam ci dofu maam xalifa ñu koy woowee Serigne Ousmane Sonko ñu bëgg a jàkkaarloog moom nag waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moo xew ci réew mi muy actualité. sëriñ Cheikh ziar nañ la. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki Kéwoulo TV ñu ngi leen di nuyu di leen baalu àq di leen mastawu uh, li tax ñu leen di mastawu nag bi ci jiitu waxtaanu tey bi tolluwaayu réew mi moo waral ngeen déplacé wu ngir ñëw sunu kër ñu waxtaanee jafe-jafe réew mi jafe-jafe réew mi nag kenn maanaam mënu koo wax te njëkkeewul njiital Kéwoulo TV. muy Babacar Kewlo muy nit koo xam ne aussi tamit Sénégal rek moo ko ñoroon di nit koo xam ne aussi tamit dëgg rek la doon ci la doon dox di nit koo xam ne aussi tamit euh, maanaam njëriñu Sénégal la doon génn di ko waxtaan ak peuple Sénégal ba li ko ci fekk fekk ko ci kon ñu ngi xamal président de la République di Sénégal muy monsieur Macky Sall ak mbooleem koo xam ne mi ci biir gouvernement am ne ci gouvernement am rek lañ gisee ay journalistes yoo xam ne dañ leen di di leen tée di leen buntu xatal di leen tëj day dem ba carte presse bi sax bi ngay yor pour dugg ci biir askan bi pour pour pour ñu joytu seen euh, xalaat ci réew mi moo kayit journal ñooy tolloo parce que ñaata ñaata euh, ñaata maanaam ay journaliste ñooy dem ci lu jëm ci wàllu manifestation yi mel ñu leen dóor ay lacrymogène ñaata journaliste la ñuy la ñuy gaañ ñaata journaliste lañ doy del seen carte presse kon loolu maanaam dafay wane ne réew mi aw na ci aw na ci tànk guuta ñi wax président de la république Sénégal aussi tamit ba tey di ko xamal ne ko presse bii muy jël tey wala presse bii nga xam ne justice ci Sénégal ñu ngi leen jël di leen tëj moom boo waroon naa bokk ci ñuy défendre euh, presse boobu ndax presse boobu joué nañu rôle bu rëy ci gouvernement tey joué nañ maanaam rôle bu rëy aussi tamit ci sénégalais yi xam kan mooy président Macky Sall ba mën koo voteel presse boobu nag ñoo ëlbatikuwaat maanaam gis ne seen réew mi ngi ci tànku mi ngi ci tànku jiyee yoo xam ne nii warta aw yoon ñu aw si siraatal mustaqim siraatal mustaqim boobu ci lañ leen téye kon ñu ngi ñaawlu Babacar teeguñ ko téegum antan ndax xamaguñ fu gumba di mujjee ki gëtam nag waaye liñ ci bëgg mooy ñu bàyyi ko immédiatement mu dem àggali liggéeyam liñ bëgg aussi tamit ci ki nga xam ne mooy Pape Ndiaye Walfu comme même la chose luñ bëgg ti coro coro coro nuñ koy waxee sax euh, coro Mandela bu Walfadjri comme même la chose ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci nguur Macky Sall aussi dañu gisee ne maanaam mbooleem koo xam ne nañ la amoo liberté totale ci nguuru Macky Sall rek ba atta Sidi Lamine Niass mi nga xam ne njiital presse la woon ba ni mu sàngoo suuf liberté provisoire la dee Cheikh Béthio Thioune comme même chose keneen ak keneen comme même chose loolu dafa ñaaw ci Sénégal te war nañ koo xoolaat. bu ñu jugee foofu dañuy ñëw ci politique politiku Sénégal waxoon nañ ci waxati ci waxati ci est-ce que yow jàpp nga ne normal na ñu dem ba toll ci ay fu ñuy waxee ay élections. ndax dina am wala du am ndax diw diw dina bokk wala diw du bokk. ñàkk xam dayooy sénégalais yi nañ bañee lan mooy troisième mandat ñetteel bi aussi tamit ñu ngi xaar ci fonk kàddoom ci ci ci lu bari ci ci lu jëm ci réew mi ak ci luy doxal réew mi ndax euh, lu yem nit gor soo waxee waroo xaal waroo xaar ay ay ay décret di teppi sa wax wala muy dëggal sa wax sa jëmm moo gën a foor décret yooyu ñuy bind parce que sa jëmm moo fi teg ñiy signé décret yooyu noonu kon d'abord première mooy respecter d'abord sénégalais yi deuxième mooy respecter sa bopp troisième aussi tamit mooy respecter kilifa diine ak kilifa aada yi ci réew mi yi nga xam ne toogoon nga wax leen ne leen deuxième mandat bii lay laaj pare ci kon président de la République Macky Sall xaaruñ la ci troisième mandat bëgg troisième mandat nag moo waral journalistes yi ñuy attesté politiciens yi ñuy jàpp di leen indil ay ay ay ay dossiers yaa ngi dégg nit ñi nga xam ne ñi ngi ci mbedd mi sax ñemeetuñoo wax ba atta soo bis bi artistes yeeg yooyu koo ci laaj def naa la sama yoon nekku ci sa première fois de l'histoire du Sénégal ñu laaj diggante opposition ak ak parti pouvoir ñu koy laaj nit ku siiw wala nit ku wala nit ku bëgg kuñ xam lam na ci njëkk a tontu mooy hoo oh, sama yoon nekku ci kon loolu yaa quelque chose am na lu ci xew. Serigne su ma déggee sa hmm. kàddu. Euh, dafa mel ne da ngaa am leçon de morale boo xamante ni yaa ngi koy jox ki nga xamante ni moo fi nekk njiitu réew mi ngir li nga xamante ni nar na koo yëkkati muy troisième mandat ndax moom nit ñi ñooy wax rek mais boobu ba léegi moom waxagul. Mhm. parce que buñ ko ci laajee danaan du ma wax waaw du ma wax déet. kon boo dul wax waaw doo wax déet nag am na lu nekk ci digg bi léegi li nekk ci digg bi noonu loolu lan la. xam nañ ne wala jàpp naa ne président Macky Sall warutoon nekkul ku waroon yóbbu Abdoulaye Wade deuxième tour il faut que ñuy waxante réalité parce que Macky égal Wade. kiif kiif création bu départ ca kaw la mu créé ko yóbbu ko assemblée Macky am nu mu def ñu génn génn lu ko ko Macky dem campagne ji ñëw yóbbu deuxième tour Abdoulaye Wade fa muy jaar Abdoulaye Wade ku ko xamoon 2012 Macky Sall nekkul ku ko war a yóbbu deuxième tour ku ko xamoon laa wax nag ci politique léegi loolu passé na Macky bëggoon ñoo imposer Karim ba mu xamee ne Karim doxul te jàpp na ne Idi wor gi mu nekk ak sénégalais yi moom lay continuer ak moom wóoluwu ko te Macky la gën a am confiance mu jël Macky problème créé seen diggante i génn campagne ji Ablaye Wade ba muy ba muy oo Macky Sall di ko félicité su ko neexoon bu ooyee armée beeg ñëpp na Macky Sall du ko may dem ak deuxième tour. maa gagné kenn du ci coow waaye pourquoi mu jox mu jox ko yëf yi parce que booba Karim lañ doon utile ji Bayre Karim Bayreem du lu muy sangoo du lu muy naan waaye gis nañ ne sénégalais yi ni ñuy bëggee nit mooy yërmande mu ne nañ ko nañ ko jël tëj ko quelque temps génn ko isolé ko génn ko réew mi pour bu élection amaatee buñ ko dugalee ci réew mi. nit ñi bëgg ko ci diggante boobu seen yaakaar tas ndax si diggante boobu yàlla moo leen xamal ne leen li ngeen doon nas di ko pexe di ko pexe di ko pexe du ma génn réew mi mel ni Sénégal pétrole réew mi mel ni Sénégal zircon réew mi mel ni Sénégal or ak yeneen yu ta lim ngeen ñëw di ko paacoo di ko di ko jëriñoo ci loo xam ne aajowul dëgg kon man yàlla danaa génn njiit lu méngoog lii waaye njiit loolu nag danaa ko teg natt ñu baax ñi bañ muñ ko su ko muñee ma jël ma jël xéewal ko teg ko ci loxoom ci diggante bi nag ci la génn président Ousmane Sonko kon ñoom seen wàllu wëy na seen wàllu wëy na mooy bu njëkk nañ daan politique yi ak politique léegi dafa changé. président Macky Sall na noppal boppam xam ni jeexal na abadan maanaam àdduna bi yëpp bu ñu daan wàcc di ko may kartan kartanal yàlla moo ëpp doole kartanal àdduna bi yëpp te yàlla moo maanaam moo ko moo ci xolu senegal yi ki wax ak ki waxut ki nëbbatu ak ki làqu ki yuuxu ak ki noppi sénégalais yi dañoo génn ci moom maanaam tifaaxan li ko waral du leen lu dul mbooleem nguur gi fi ma sa jaar moo fi gën a bëgg fayantoo di jàpp nit ñi di tëj mbooleem nguur gi fi mas a jaar moo fi gën a amadi yërmande ci askanam mbooleem nguur gu fi mas a jaar moo fi gën a métti taral maanaam ay méttal ci askanam parce que lu yem ni président de la république Sénégal sëñ Fallou su demee ba mën a toog nit ñëpp di ko seetaan ab journaliste comme yow mi may laaj di ko laaj amul lu koy tontu lu dul ku gedd sa yaay ay bu toogee may la xooñ bu fekkee yërmande nga xam ne dafa amuñu téye ko bu fekkee ñoom dañ ne maanaam euh, njëriñu doomu aadama wala njëriñu jigéen la ñu wër ki nga xam ne journaliste la tooñut deful lu deful lu marul def ñu jël ko jàpp tëj ba pare mu ëmb nañ dawal seen xal ci yàlla képp kuñ téye nger la ba mënoo wax bis dana jot nga wax ak nakir ak munkir te kenn du wax ne la waxal ta danga nga wax par force. le 16 mai procès Ousmane Sonko ak Adji Sarr te ñu bari dañoo waxoon ne du am léegi lan ngeen xalaat ne moom moo waral ñu indi. ñaari procès yooyu tegle ko nga xamante ne rawe rawante fukki fan ak juróom. Euh, Olof Ndiaye nee na kuy yot du sëqat waaye ñoom dañoo boole yot ak sëqat ak daw gu métti li tax mooy xam nañ ne diggante bi dafa xat te fii ak élection yi coûte et mun na ñëw te maanaam liñ wax ci projet Mame Mbaye Niang bi xam nañ ne problème moo leen ciy dugg moo leen ciy moo moom lañ ciy jëlee beneen bi gis nañ ne. fan yi def nañ déclaration bi wane ne Ousmane Sonko lim liñ defoon ci yaramam jóge na bitim réew te xam leen nañ ne maanaam dañ doon tante jiima fat bakkanam moom Ousmane Sonko mu jël yëreem yóbbu yëreem bi jot nañ ci déclaration ci page Facebook am ne maanaam euh, yëre boobu ñëw na dafay dëggal lim doon wax moom Ousmane Sonko kon diggante boobu maanaam beneen dossier war fee ubbeeku ñuy jéem a xool ku doon def loolu ak ku doon def loolu moom lañ dund may Ousmane Sonko mais lépp importance mooy dugg na ci oto ñu toj oto ñu ñu ubbi oto ba jël ko caxat-caxate ko xotti yërëm dugal ko ci biir seen oto ñoom jël yóbbu tribunal mu àgg daanu feebar ñu jël yóbbu hopital bi yóbbu hopital li ki nga xam ne moomam soma wax loolu leer na ñëpp nee na moom tiimu ko ay médecin am tiimuñ ko médecin Ousmane Sonko ñoo ko tiim kon Ousmane Sonko bu fekkee dafa jël maanaam problème mooy Ousmane da leen a dàq politique te ñoom xamuñ politique parce que Ousmane avant muy def déclaration di wane ne day jël na yërëm yóbbu ko bul fàtte booba avocat am jël na avion bu wane ne yi dem dem bitim réew ku wax ne ku wax ne du avocat am moo jëloon yëre bi yóbbu ko mais bu dek bu teeloon a dekk def déclaration ne sama avocat mi ngi yóbbu yëre bi avocat bi du génn réew mi mais il faut ñu def déclaration ne avocat bi droit may na ko mu génn xoole yaramam parce que moom tamit loolu loolu leeru ko léegi avocat bi nag comme génn na il faut que avocat bi nag jël jëlaale yoru Ousmane yóbbaale ko loolu nag mbiru avocat la ak mbiru Ousmane ak mbiru droit mais lépp importance moom dana génn fa génn jotee te du yàgg dara te bu génnee yaakaar am nañ yaakaar dana leeral hôpital bi ñu defee loola wala clinique bi ñu defee loola bitim réew ak ak signataires yi ak lépp loo xam ne ni bu leen neexee ñoom ñi nga xam ne yor nañ wàllu justice ñu yónneelu ca bitim réew ci hôpital ba ñu defee loola laajte ba xam lii lu am la wala du bu doy waar muy le 8 ak le 16 may wax patriote yëpp ne leen euh, amul bu ci doy waar maanaam ci ñoom la doy waar rek ñoom ñu tiit bay ay projet waaw fi toll nii sax nañ ci bu Babacar Keolo bi waaw kon ñett pro ñett projet yi noonu yéen yéen bokk ngeen ci. waaw boole ci Ousmane it <laughs> boole ci Ousmane it ndax Babacar réew mi lay xeexal te Ousmane réew mi lay xeexal voilà euh, gis nga aji Sarr ak euh, waa ji Mame Mbaye Niang lii bu nekkul dossier politique foog ñuy wax waxante dëgg quoi réalité dossier politique amul ci àdduna bi c'est la première fois di l'histoire du monde ñuy atte nit koo xam ne dañ koo tuumaal viol déglu bu baax li may wax ñuy atte kuñ tuumaal viol. viole boobu leeragul ci liñ wax ñoom parce que joxe guñ décret bi wane ne Ousmane moo def wala deful ñu yóbbu ko chambre criminelle kon ne waroon na xaar bañ jàpp dat ñu soog di wax waxi Mame Mbaye Niang mais pareegul ñu jël dossier Mame Mbaye Niang ci diggante bi pose loo Adji saar loolu amugul ci atte amul ci l'islam amul ci leneen ci histoire nag ci atte laa wax tuumaal nit viol leeragul yaa ngi dégg setala góor ndaw si setala góor ko góor ki jël beneen dossier chargé ko ci kaw kiñ tuumaaloon viol kooku dox soxlaam ki tuumaal viol ñu tëj ko ne ko bul génn muy ku jigéen ki léegi ci biir loolu nag ñu jël nit ki daan ko ci lu ñu wax ci ñaari weer yoo xam ne du tëdd amaan ko 200 millions jëlaat dossier boobu encore maanaam pelantu jël kooka ne ko yóbbu ko euh, comment dirais recours kooku jëlaat mambay ñaa jëf yóbbu ko recours ñu pose loo waat mambay ñaa xëccaat bu aji saar ci kawam encore muy ñaari dossier lii bu fekkee du dossier bu fekkee du dossier politique dossier politique amul ci àdduna bi képp koo xam ne xeexal nga sa réew da ngaa jihaat ak koo mën a doon xeexal xeex injustice mooy jihaat nañ bàyyi baatu jihaat bu ñu transformé jihaat mooy lan mooy kii xeex injustice yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba muy ñëw di xeex di xeex di ne màkk yéeféeri ñëw di ko teg injustice di jël jigéen ñi di leen jàpp di gas di suul di jël baadoolo yi di leen def ay jaam fa la jaam xewee yaa ngi dégg di jël der bu ñuul di leen doy dal di leen def jaam yonentu yàlla moom ba mu ñëw yàlla da ko jëkk wax ne ko xeexal nga dindi injustice mu ne ko nu ma koy dindee mu ne ko jigéen ñi ñu gas di leen suul dindi loolu kon képp kuy jigéen nga génn xeexal sa réew yàlla moo leen jëkk xeexal képp kuy ndaw génn xeexal sa réew yàlla moo leen jëkk xeexal waa kañ takkoon na ko na ko ko na ko benn baat rek boo ko waxee tuub mooy lan mooy yàlla yàlla amul waxal asad bul wax asadu laa ilaaha illallaah waxu ko tamit jigéen ñu jël ñu jël euh, xeej jëm ko ci biir bi kooku lu mu def kooku xan kon xanaa kon xanaa bu dee fale la jëm parce que bu ko neexoon l'islam mayoon na ko bu mu ne yàlla mu ne mu ne waxuma ashadu laa ilaaha illallaah saaga yonent bi ba pare retourné waat dem dem yonent yàlla jégal ko parce que dee taxawoon sëñ bi nit ñi ay dof jàng nañ képp ku xeexal sa réew boo dee àjjana nga jëm. bu ñu jugee foofu dañuy ñëw ci li nga xamante ni mooy xam-xam sëñ Seex ma gis nga dajale fii ay wàllu garab. am na loo xamante ni dafa sonal ndaw ñi ndaw ñi laay wax am na lu leen sonal lool muy wàllu télé. leeral li nga xam ne mooy kàddu kër gi. aw ma woon sax waxtaan ci wàllu xam-xam ak lu mel noonu waaye njëriñ bu ñu la seet see da ngay jëriñaale ñëpp euh, télé nag mooy li ñuy wax impuissance sexuelle euh, dafa sonal ñu bari li ko waral mooy bion yeeg lekk yu bon yeeg yu mel noonu xale yeeg mag ñeeg ñëpp la sonal léegi voilà jeex na impuissance sexuelle nag ñett moo koy def ba ñeent benn bi mënuñ koo faj muy judduwaale mais ki nga xam ne rab da ko koy def dañ koy traité incha allah ki nga xam ne aussi tamit feebar la moo xam hémorroïde la wala ballottement wala diabète wala tension wala yu mel noonu dafay def impuissance sexuelle dañ koy saafara bu fekkee liggéey la mooy nit def la ko moo xam takk xala la wala nit liggéey la wala nga dëgg liggéeyu jàmbur ba mu yóbbu la foofu dañ koy traité clinique bi indil leen traitement bi pirate kat yi nag dañoo bari moo tax dañ koy def ci enveloppe ñeent traitement yi ñu la wax ñett yëpp moo nekk nii ba ñeent yi képp koo xam ne maanaam jël na ko suñ tampon moo nekk nii nekkaat nii ci gannaaw tampon bi suñu numéro téléphone moom moo ci nekk aussi tamit moo tax kuñ koy jox ci clinique bi dañ lay jox dañ lay jox dañ lay jox euh, traitement bi beneen bi ci des aussi tamit maanaam clinique bi dafa am nu ñu liggéeyee léegi mooy ñaari numéro experto yi ngeen gis ci bando bi mooy numéro clinique bi ku soxla lu jëm ci wàllu garab mooy faju ak lu mel noonu boo ootee ci ñaari numéro experto yi suñ secrétaire moo lay wax garab bu nekk lu muy wecce ko ak traitement jox la ko bu ko defee ñun ñoo lay expliquer nu ñu koy utiliser bu fekkee lu jëm ci wàllu ñaan yàlla la nag moo xam soxlaay doomu aadama bi la kooku yoonu clinique bi nekku ci kooku suñu mbir bopp la moo tax parce que dañoo xat te ñi soxla bari te jot ñu xaw a jafe impuissance sexuelle nag képp ku ñëw dañ ko saafara wala bii amaal na ci biir produit boo xam ne dafay yokkaale awra bi maanaam bu fekkee dafa tuuti wala mu gàtt ba mënoo jot bànneexu ku jigéen ki dañ boo ko ci du yokk moom mooy traitement bi lépp daal moo nekk ni mooy complété bi gannaaw bi ñu jógee ci li ñu ñëw ak yow ci laa ñun patriote yi ku ñu jaay dara mu am infection am nga problème moo tax ñun lépp lu ñu jaay jamono ji dañ koy xoolaat ñun ñemewuñ ko sax waaw ñun patriotes yi man pas Serigne Cheikh man patriote la pure et dure yor carte Pastef bokk membre bokk ci membre membre Pastef yu mag yi aussi tamit leneen ndax nañ xuloo man man làqatuma man sama étiquette yi sax kii Pastef la gisoo sama étiquette yi may def sama kii sax kii Pastef le vert blanc non non bii mooy traitement kaddu kër gi parce que traitement bi booy xool dafa am ci biir pot bu def sunguf sunguf bi moo nekkoon bitéel bi mais bu nekkee ndox bu ci bu defee ay semaine ak dafay am benn xet boo xam ne dafay bu duggee ci biir doomu aadama bi dafay am problème ak yuy dem bitim réew ak yooyu moo tax ñu def ko sunguf boole ko euh, ay reen ak ay mbir yu bokkut yu nekk ci biir ak bi nga xam ne mooy réel awra bi mooy traitement bi moom lañ teg ni bii pour hémorroïde la ak ndoxu siti hémorroïde dafa am interne ak externe mooy bu génn ak bi nëbbu bu dee bi génn dafa am sunguf bi muy ànd boo xam ne dañ la koy jox nga taf ko ci booy tëdd boo yeewam opéré ko moom seet ko dox ci soxla yi bu fekkee bi nekk ci biir la bi xururi booy dem gannaaw kër pour nga jot sa bopp dafay dafay yéex moom tamit bii lañ lay jox nga naan ko une semaine mu rey mboolem hémorroïde bi nekk ci biir nga nekk beneen bi ci des mooy bi xam ne dafay faj vingt cinq maladies bii nag Inde la jóge ñaar fukki feebar ak juróom lay la la garab gii di saafara garab gii réew mi ñuy wax réewu Inde la jógee booy xool maanaam li ci ëpp fërët lay doon ci ci ci biir euh, réewu Inde yi bu ñu ne fërët nag mooy am na maanaam yenn garab yoo xam ne duñ bëgg mu génn ci dëkk ba parce que maanaam cosaan la fa booy xool garab gi moo nekk nii nii lay mel mooy euh, montagne yooyu di am ndox ndox ndox di ci génn ci lay am te lu gën a yéeme ci biir ndox mi la garab gi la garab gi di nekk te dafay niin voilà moo nekk nii kii vingt cinq maladies lay faj ñaar fukki feebar ak juróom jabet tension ballottement biir buy métti ndiglu yu métti tànk yu métti bëñ buy métti tension bu normalul wala jabet wala cancer de cœur wala cancer de fois wala feebar boo xam ne jaaxal na la wala rein yu am problème kii moo ci gën a gaaw su ma ko waxee par na dama naan maanaam misaal mi neex naa xam parce que sa raar ngay gis waxuma amul na ku dut feebar amul mais sa raar ngay gis Inde bu feebar wala Sinwaa bu feebar parce que ñoom ñaar dañuy joxante ay garab di teg di joxante ay tegtal te Sinwaa yu bëri ngay gis ñuy ñuy génn di dem di xooli dëkk yi mooy li ñuy wax tourisme xaw ma Inde la ñuy gën di bëgg njëkkee pour di am xam-xam yi nga xam ne mooy xam-xam wàllum mistine ak wàllum faj ak yu noonu moom garab gii day faj vingt cinq maladies incha allah bu ñu jógee ci bi ñu ñëw ak yéen aussi tamit li nga xam ne moom mooy faj arthrose xam nga luy arthrose mooy yax yuy métti gis nga fàllu arthrose dafa sonal ñu bari surtout jamono sedd bii ñu jëm yax yuy métti ndigg luy métti tànk yuy métti wala paralysement wala yu mel noonu kooku traitement arthrose bi lañ leen di indil traitement bi kii def ci ànd ak bitéel bii nii ak beneen frotté boo xam ne ñu ngi koy composé xam naa fii suba dana pare ñett yooyu mooy traitement arthrose képp ku ñu ko jox nga jëfandikoo ko une semaine billaahi wa rabbul kaaba fépp fu sa yax doon métti nga ànd nga tàqalikoo ak yu métti garabu ngóora bi nga xam ne gatsa gatsa la tudd waaw boo pétrole di ñoo ko tuddee gatsa gatsa waa parce que waa ñun ñun ñun ñun ñun ñu ngi sant yàlla ci massa massa voilà gatsa gatsa mooy bii mooy bii nag moom ngay jël léegi mu réagir léegi moo tax ñu tuddee ko gatsa gatsa maanaam da nga am soxna soo xam ne daf la yàgg daf la yàgg a yàpp yàggaloo yu mel noonu boo ñëwee guddi ga neex kay maanaam nga jàpp ko duma ko duma yu métti loolu kay mooy gatsa gatsa mooy moom yàgg na laa tooñ tey fayu nga. yàgg na laa retaan tey fayu nga li kese mooy moo bi mais moo bi moo dis mais du dara kii nag bokkul ak traitement ngóora bi kii pour léegi-léegi la rek maanaam di war a dem sa soxna war a jëflante ji amoo jotu def traitement bi pendant une semaine nga bëgg koo naan léegi mu réagir léegi boobu kii lañ lay jox nga jël ko léegi gis léegi boo so waaw bii nag maanaam boo koy jël pour pour jëfandikoo rek boo soxlawaatee maanaam comme noonu it da koy da ngay demaat mais nag li maanaam li mu utee ak bii aussi tamit bii bu la xasee ba traité jëratul nga ñëw ci sëñ Cheikh dafay faj complètement maanaam feebar bi tax nga gaaw jot sa bopp moom lay moom lay traité ma tëjee ci euh, benn bi nga xam ne moom moom moom la ñuy wax wàllu estomac mu nekk feebar bu ndaw te sonal ñu bari estomac gis nga sëñ Fallou dees na ko sewal mu rey la dees na ko sewal mu métital la ba yóbbu la beneen feebar mooy bii mooy traité estomac une semaine billaahi warabul kaaba nga tàqali ko estomac bëri na ay docteurs yoo xam ne dañuy faj ci yenn hôpital yi du ma tudd yi nag mais dañuy dem nit day dem di faj lu estomac ñu koy jox yenn garab yi ñu màcceeg wala yu mel noonu bu demee bay xaw a sonn sax dañ koy ko jox sama numéro ne ko demal sëñ Cheikh mu jaay la garabu estomac bi te maanaam bul siiwal ne man maa la fa yebal loolu nag maanaam ak mbaax la maanaam nit ki garabu tubaab bi li ci ëpp calmer la man mais mu faj ñun garab yi tubaab bi li ñuy defaree seen garab yi nii suñ jeexatalu garab yii la ay niwaa kiling ak ay ay kii dañ koy defaree rek ay euh, comment dirais-je cassia mooy niima ay yooyu ay xay yaa ngi dégg garab yooyu lañ jël yóbbu ko seen laboratoire defar ko ñëw indi ko def ko comprimé di la ko jaayaat te sa àll bi lañ ko jëndeewaat kon nañ respecté loolu sëñ Fallou baal ma jox ma parfum boobu ma tëjee ci boobu yaakaar naa yàgg nga koo xam mu ngi ne la ba voilà parfum boobu mooy benn bi rek parfum bayre bi ñëpp xam parfum bi képp koo xam ne euh, sànni rek képp koo xam ne maanaam euh, jëfandikoo nga ko dañ la xam zaahiran wa baatinan kii ci bayre rek lay dox ci bayre rek lay dox su ma ne ci bayre lay dox nag xoolal ki am na ko wala amu ko xoolal man miy wax ak yéen ndax am naa ko wala awma ko parce que it bayra dafa baax ci doomu aadama nit a ngi am ay milliards fu mu génn ñu di ko ciibatu fu mu bu sañoon am bayra koñ ba mu dëkk bëgg ko nit a ngi politique am ay millions ko joxe kenn mënu koo wateel te kenn bëgg ko nit a ngi ñàkk ñàkk a jox nit ñi nit ñi di ko wateel di ko bëgg te du xam lu tax kon nañ gën a sonn suñu bopp kii nag li mu gën a gaawee mooy nga nekk bitim réew am tubaab boo bëgg wala wala nit ñul ñuul koo bëgg nga ut karaw tubaab def ca mbooleem ko weex ku nekk foofu dana la bëgg billaahi parce que lii ci xawaati mu Yuusuf lañ ko daggee ndax yontu yàlla Yuusuf nekkoon na koo xam ne dañ koo tëjoon kasu mu génn misra yëpp bëgg ko mu jubbanti misra yëpp ba mujji bokk ci biir gouvernement bi du jubbanti waate kon loolu maanaam ay xam-xam yoo xam ne la maanaam euh, xam-xam xam-xam yu wér yu maam yu daggee ci ay xaatim ba ko fi euh, ku soxla lu nopp alhamdulilah am na fi ku soxla wàllu kaaraange alhamdulilah am na fi ku soxla wàllu këyit alhamdulilah am na fi ku soxla lu jëm ci wàllu maanaam boolante mooy nopp am na fi ku soxla mbooleem xam-xam boo xam ne du yàq mbokk du tas dina lislaam du tas tarixa yi du jaxase mag ñu baax ñi incha allah bi xawlulaay waxooti bu ñëw ñu dimbalanteeg moom ci zahiran wa baatinan ñun nag li may wax chaque jour ma tëjee fa nit mën na am ay milliards daagu ñëw ci ñun duñu gis duñu jot parce que bët bu set chaque trois heures du matin bu ma jógee di jaamu yàlla li may njëkk wax mu ne allahumma yow yàlla maa ngi lay ñaan nit bu yoroon ay milliards daagu ñëw ci man soxlaam natt fa yow ci man yàlla bu ma xam yàlla bu mu yegg si ndax gàccaay sëriñ mooy moog ñëpp a yem xamul dara gàccaay docteur yi mooy comme opéré woon dene léegi stagiaire la xamul dara yàlla ñu yàlla musal ci loolu li may tëjee nag mooy sëriñ si nañuy dimbale ñiy ñëw si ñun ñoom di leen ñaanlu si yàlla ndax ku ne ñaan yàlla yomb na yaa ngi nax sa bopp waaw àdduna nag foo dem foo am na foo yonentu am na bu yàggu dégg nañ fi jigéen koo fi doon wax naan ab yonentu la monsieur le mënul kasaab na ko ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon foo sëriñ mënul ñàkk foo ministre am na foo docteur am na foo journaliste sax am na ñaata nit ñoo lay dalal duñ mën a wax ñaata journaliste duñ xam sax man mbokkowuma kenn ku bon ñu baax laa mbokkoo c'est-à-dire mbokk mooy wa innaka la ala xuluqin azim jikko jikko la ñuy bokkeeg nit mun naa nekk ab chrétien nga nekk ab jullit terewul ngeen mbokk parce que seen jikko seen deret maanaam bañ na di fen seen deret bañ na di jaay askan seen deret bañ na di lekk alalu doomu aadama ci li nekkul dëgg man ci lii rek laay mbokk ak nit danger a def ci ñoom mooy naxe moom ñetti at at ma nga ko defee at at mën na nit ña xamee at mën na nit ñu bàyyee ña ko doon def ña ci séwoon ñëpp da na làmbaatu rek naa leen vraiment waxtaan bi neex na euh, vraiment ma am cawarte ak kontaante toog ak yéen ndax xam-xam dana génn actualité génn di lancer appel njiitu réew mi na ko na delloo si xelam delloo si yërmande ci askan wam waaye di lancer appel aussi kilifa diine yi ñu gëstu askan bi ndax sonn nañ ci tëj bi sonn nañ ci attestation yi sonn nañ ci convocation yi lu lu tolloog 700 euh, personnes ou 800 personnes ci depuis 2017 ak léegi ñu jàpp ay nit di leen tëj di leen buntu xatal di leen dóor di leen xoxatal liggéeykat bi journaliste ñemeetul génn génn information boo xam ne bu wér la journaliste bi nga xam ne mi ngi xam li xew ci réewam du ko xamle a génn information am kilifa gi nga xam ne porteur de voix la ñemeetut a wax la xew ci réewam loolu bu demee ba am ci réew mi ñi ci am pas de nañ génn wax ak njiitu réew mi waaye nañ génn wax ak justice su réew mi waaye nañ génn tamit wax ak inter ministre de l'intérieur réew mi waaye nañ génn aussi tamit wax ak mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi kii ci réew mi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñi ngi baalu ñëpp àq di leen baal àq seen mbokk seen xarit Serigne Cheikh Tidiane Niass wante nag la grand patriote